waye nak kàddu yi dañ koy jël rek diko ko jox Macky Sall mi nga xamanteni euh moy sunum jitum rew dila wax ni yow mënuñu la wax lenn lo xamanteni luy ñaaw lay doon ndax yow da ngay sunu kilifa tay nak nit ki doko ko ba pare diko ko faxastal waye nak li ñaan auto lu mu fess fess nuyul ma sama yaay xajna ci motax ñuy jël kàddu yi rek dila la dila wax ni euh baxna waye gëna bax dafa gëna am na ñoo xamante seen loxo jotul seen ginnaaw am na ñoo xam bu ñu añee dunu reer am ñoo xam bu ñu reeree duñu tey te it yaakaar naa ni di gesu ci ginnaaw day am solo ba tax na daal man moom li ma métti lenn la rek muy courant bi ni yokk ceeb bi seer na nan wàññi lekk mbirum li jëm ci lekk ak ak ay courant yooyu nan ko wàññi parce que sinon ñiy dund du dañ leen di compter man aw ma benn souci man sama souci mooy nan wàññi lekk geeg naan gi. pas pour man mais am na ñoo xamante ni boo leen mayoon cent franc duñ ko gëmee ndax dëkk bu métti te mag yi bala ngaa jël nguur gi daa am loo fi waxoon tey nag dañ ñu góor ca wax ja dañoo bëgg nga jël la nga doon wax li des ci sa mandat pour boo bëggee ëllëg sa way euh, sa rafet li la dese bariwul bu yeboo nga profité ndax nag ah dina am solo lool fii ak vingt ans ci ci ginnaaw. ñu ne Macky Sall kat ba mu fi nekkee kenn sànniwu ko xeer moo gën li des ci sa nguur ngay ñëw di def moo maanaam euh, yaam ma gën a xam. kon Massamba. waaw yow bu fekkee am na lu la métti rek dañuy dañ rek nga daal di. Pape fi nga daanalee rek laay la la la laa yeggalee ndax nee nga léegi am na ñoo xam ne seen loxo joxul seen ginnaaw bu doon bu bu xasa bu xasanee duñ ko mën a kii wax waaye nag fi mu ne man leen rek a métti ah. mooy xaalis bi nga xam ne moom lañ bëgg a changé. Wow wow wow wow wow wow wow wow wow balanga laax jay laax lek dama bëgg di bi nga xamne mom moom la ñu war bakna, di Macky ba ko fi mu ne woon fi mu na te it nag ne lañ xam mako fofu man lool rek mit allo. waaw man nak lu mu métti bari lu mu bari ba ni mo ni barki serigne saliw te lepp mom la nak te def ni barki demb rek lañu yok courant bi barki demb lañu yok courant bi mu metti lool ñepp di ñaxtu waaw mais len rek la ñaan maki ane bi ñuy dugg yalla nek ane ngeenel ci yaw moy nga changer lu bari dimbali nit ñi ha ah. ñoo amul nga to len liggey ñuy semé xama ñu nek ci ndax tay da ngay xol la plupart ñu bari am nañ seen diplôme te ñi ngi wër di jaay café ñi wër di taxawalu te loli loolu ya ci wara dox ya ci wara wax waaw loolu ya ci wara dox ya ci wara wax te ba bari nit ñi sonu nañ ah sonn nañ nit ñi sonu nañ torop ndax nit ñi danoo xif ndax dund be metti nit ñi xif barki Serigne te tamit def suma soñon da ngay wañu lu bare bare bare bare dimbali nit ñi da ya fi ne yow la sunu yow la sunu sunu borom yow la fi tek kon dimbalu ñu rek taal rek tax nga deful ñu ngëneel may ñu ndam ñi ngi ñaan yalla nak si ane bi ñi dugg ni yalla dimbali jaam yeb ñu dugg si ane bu yeb ah ko ubeko. si ñu yalla ak yonent bi Serigne Touba mam serafal waye suñu mbokk yi nga xamne ne ñoo nekk si nattu yu metti yi nga xamne ñoo nekk si hôpital yi ñi nekk si prison yi surtout prison yi yàlla war suñu borom ñi ngi ñaan yàlla mu jàppale leen ak ki nga xam ne ne moom mooy kilifa dëkk bi mi Macky sàlla na jàppale suñu mbokk yi nga xam ne ne ñoo nekk si prison yi ndax prison yi métti na lool barki Serigne Touba métti na lool ba si kanamu yàlla nañ leen jéem a jàppale ay xale yu ndaw yoo xam ne ne dañu am seen avenir xëy na nattu moo leen fa teg te ñu ngi ñaan yàlla loolu dugal leen foofu yàlla bu mu amati ñu génn si ci jàmm yàlla dimbali leen Macky Sall jàppale leen ci année bu bees bi mu jéem a leen defal li gën dimbali leen ndax foofu nu mu méttee ñëpp xam nañ ko. ñenn ñi ndogal moo leen fa yóbbu ñenn ñi xëy na ndogal yóbbuwu leen fa waaye tamit lu leen dal yàlla bu mu leen dalati te yàlla na leen borom bi jàppale maa ngi leen di ñaanal guddeeg bëccëg nag yàlla na leen borom bi jàppale Macky Sall tamit nay góorgóorlu jàppale sama gaay yi nekk si biir métti na lool barke sëñ Touba te ay xale lañ yàlla na leen borom bi jàppale man de moom laa leen di ñaanal barke maam Cheikh Fall te yàlla na leen Cheikh Fall jàppale ba li leen dal nii yàlla bu mu leen dalati bu ñu génnee si lii yàlla na doon li gën ci ñoom. barki sëñ Touba loolu rek laa di ñaanal fu waay mënta nekk nag jàppaleel sama mbokk yooyu ñooñu ñu jar jàppale lañ ndax métti na lool àdduna métti na ah année bu bees bi ñuy dugg diñuy ñaan Macky Sall mu soppi yenn yi tamit soppi ko barki sëñ Touba jàppale doomu aadama yi fii ñun ñëpp ñooy jàppalante moom dong mënuñu jàppale waaye ñun tamit foog ñu jàppale suñu bopp. waaw jën laa Euh, nek fi ci plage bu BCEAO nek euh, comment dirais-je euh, di coordonné maître nageur yi fi nek dal ci BCAO bi bon waaw comme li nga laaj nag moy ak discours président bi si problème yi nga xamante ne moo am fii si dëkk beeg yooyu quoi waaw comme man limay may liggéey muy surveillant de baignade gis naa ne comme si plage yu Sénégal yi y' a beaucoup de cas de noyade bon gis naa ne problème boobu aussi war nañ ko régler parce que boo xoolee fu mel ni ay parcelles géejawaay li fi dee si doomu aadama dafa bare depuis des années mu ngi am mais gisaguñu cas boobu ñu ko régler bon bu loolu jàllee xanaa li may waxaat rek mooy. aussi ñi nga xamante ne ñooy def euh, immigration bi di jaar ci géej géej yooyu parce que loolu aussi li koy régler mooy foog ñu trouver les yi emploi waaw parce que yaakaar naa ne bu emploi amee rek problème yu bari dina mën régler. dëkk bi nag war nañ cee wax jeunes yi am liggéey jeunes yi amuñu liggéey dëkk bi métti na yaa am gën a xam xëy nelaw di jóor am benn sant soxla yu bëri lañ courant baa ngi yokku na. ceeb yi yokk na dund bi yëpp cher nañ ci jàpp nag s'il defal la ñu yombal affaire yi ndax mu gën neex waaye. ok ma sant di gërëm ci deux mille dix neuf yàlla ñu fekki at yu bare bare bare bare année yu ñëw nii mu doon suñu xéwal suñu nataangee képp jullit même bu dul jullit kerekee ñëpp. ci yem kandaa Macky Sall loolu dinaa ci sawar a tontu ci ay mbiram ndax fu mu toll ne nit ñi sénégalais lépp fii ba bitim réew international fépp foo sénégalais nekk même bu dul sénégalais sax da koy day déglu Sénégal est ngi dégg année bi passé Macky Sall war na xam ne réew mi ku la wax réew mi neex na moom xanaa ñu bokk ci nguur te même ci ndëkk ci buur sax dañuy bañ de mais ñoom xam nañ sax yu ndëkk bi neexut mais comme ñoom ñoo ñu jiite te ñu ñoo leen fal il faut ñu jéem a négocier rek nit ñi comprendre leen la ñoom seen discours mais gënuñu dëkk bi metti na par rapport man sama kaalaay wax ñëpp sénégalais mais surtout ñun ñoo xamante ne dañ dëkk nord Casamance sud man foofu laa cosaanoo foofu laa dëkk Macky lu ma ko ñaanal mooy priorité yi muy favoriser waa Ndakaaru année bii dama bëgg su fekkee dina dëgg sama conseil wala dina dëgg sama wax na jubul waa Casamance ndax Casamance ñun sonn nañ trop trop trop trop trop trop toujours waa Casamance instant may dëgg man sama région bu ma dëkk région de Sédhiou daanaka Sénégal yi yëpp moo gën a dumburanke Sédhiou amul dara boo fa demee sax bu ne la fii Sédhiou sax ko doo ko gëm te mu bokk ci Sénégal c'est pas normal man loolu laa koy ñaanal fa ma dëkk Sédhiou Marsassoum def nañ goudron mais problème bu gën a fës foofu yo amu courant amuñu ndox lu fa am du maanaam defar nañ ko mais marsa à à bemme à ci ci kaw dara depuis indépendant y a rien là-bas